السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان في كل مكان نعيكم تحية الإسلام وهي سلام الله ورحمته وبركاته وإيرانه علينا عليكم سلام كم نيجي نكو ko xamee لا يخفى عليكم نيجي فصل سنو fësal sunu keno ci kenn كنال yàlla kennal te dootu kennal buñ lako laajé bul sori borom 53 ans yi ci màkkatal mu karam 10 ans yi ci Medina boko bolé muy 63 ans wat nañ ci émission bi nga xamné mom lañ baxo ànd ak yéen muy gadda yu nabi euh bi nga xamanteni ni si ñu koy défé fi ci prestige ngeen koy ànd ak seen mbokk Serigne dam saxo ñu ziar khalifa yi nuy Serigne Babacar si Mansour ibnu al hadji Mansour ak waa kër Cheikh Sidi Hadji malik yépp di ziar bu baax it ki nga xamante ne si mooy waa kër euh, maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nuyu Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mamadou Basir ak waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yëpp nuyu waa kër maam El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène nuyu Serigne Muniru ba ak waa kër ga waaye ziar waa Ndiassane itam nuyu xalifa ba jaarale ko ci Baye Sidi bu Thiès waaye nuyu bu baax it nag waa kër maam Seydina Limaamu jaarale ko ci seen ambassadeur Serigne Assane waaye nuyu waa kër Thierno Abuja nuyu Serigne Ibrahima Dia waaye ziar bu baaxit nag waa Ndiassa waa Ceneba euh, nuyu xalifa ba jaarale ko ci Baye Souleymane Seck waa Ñaseen euh, nuyu sunu kër maam Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass nuyu xalifa ba ak waa kër ga yépp ñëw ba Thiès nag nuyu Serigne Saliou Touré bi nga xam ne moo fi toogal maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, nuyu ko ziar ko waaye nuyu sunu mag ki nga xamante ne si mooy El Hadj Idrissa gay ak Oustaz Abdoulahi Diop. ñu ziar leen waaye jaar foofu nuyu sunu waa kër Baye Omar Diop yépp ñu ngi leen di ziar képp koo xam ne yaa nga fa ñu ngi lay ziar baax di leen nuyu waaye ñëw ba ci télé bi nag nuyu ki nga xam ne mooy DG Alxaaji Pape Doumbouya ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci télé bi sëriñ si nga xam ne ñi ngi fi oustaz yi borom xam-xam képp ku nekk ci télé bi ñu ngi lay nuyu waaye di nuyu nag ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci régie ba ak ñi yor caméra bi muy Alaaji ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko nuyu di ko sargal xaritu Alaaji Pape cuun la Elage moom itam yaakaar naa ñu nuyu ko ziar ko nuyu madame Ndiaye moom itam ñaanal ko sunu borom dolli ko kattan dolli ko jàppale dolli ko tawféex waaye nuyu Adja moom itam ziar ko ñaanal ko nag sunu borom dolli ko kattan nuyu ki nga xamante ni si soxna si moom it di ko ziar bu baax di ko ndokkeel. waaye nag tey ñu dalal koo xam ne muy oustaz Ousseynou Diop di doomu baay Omar Diop di rakk ci alaaj alaaji Idrissa Diop di borom xam-xam yor daara fii nga xamante ni si moo nekk ci caali tey nag ñu dalal ko waaye nuyu sunu waa kër maam Elimane Sakho nuyu xalifa ba Serigne Habib Sakho. ak képp koo xam ne yaa nga ca kër ga rajo Ousseynou ñu jox la kàddu gi nga nuyoo bismillah bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala jaxjax mubajjal sayduna muhammadin ibnu abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sof sama nuyoo ci ki daaneel kàddu léegi yoraat ko muy alustaas Dame Sakho ndax benn jëmm la rek kon su daaneelee kàddu moo ko yoraat képp kum nuyu nuyu naa la ku mu ziyaara ziyaara naa la ku mu fàtte woon sax nuyul naa ko di ñaan suñu borom bi bërëb bi yàlla ko yàlla yëkkati ba ñëpp dégg ko amiin yaa rabbal ñaanal directeur yan yàlla doli sutura def tawfiq oustaz damda pour teunk rek pour ñu dugg ci waxtan bi ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu suñu kilifa ji Idrissa di nuyu fami ba assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah oustaz nuyo bi amna solo te itam jaar na fi mu wara jaar ndax min ka ilayka la alhamdullah kon nak yàlla yàlla def ko muy aw yu oustaz tay nak ñu wara waxtane lo xamne ñëpp war nañ ko xam ca damay wax ne li kulli maqal maqaal bërëb bu ci nekk la fa nekk lool la ñuy gis ngir waxtaane ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon jikko yoo xam ne ñëpp xam nañu ko te ñun nag yàlla wax nañu nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ngeen di roy na ngeen roy ki nga xam ne mooy yonent bi ndax lu ma doon denc tedd ngay jikko jox naa ko ñu gis école yi ci dëkk bi daara yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak donga yi nga xam ne ñi ngi dem ci daara ji di fa jóge di ñëw ci dëkk bi waaye bu ñu fa jógee ñëw ci kër gi élèves yi nga xamante ni si ñi ngi dem ci école bi bu ñu fa jógee waññeeku ñëw ci kër gi hmm. ndax jikko yi nga xam ne ñu ngi koy jëf ci daara ji lañu ko jële wala li nga xam ne ñi ngi koy jëf ci école bi lañ koy jële kon est-ce que jarut ñu taxaw seetlu hmm. ndongo bi moo deful li mu war a def wala ki koy jàngal dafa am lu mu manqué xadis boobu nag am na loo xamante ni si tënk nañ ko jëmale ko ci sangu-sang yi géeru géer ñi ñun ñu war ko xam ndax période am ci la ñu toll tey nag ñu dalal la fi ngir laajte ci ay question nga indil ñu ci bu ko defee nan lañ war a mën a def ba jikko yi nga xam ne moom la yonent bi yoroon suñu mënta jël yépp it ku ci jël benn rek raw nga fi nga xamante ni si fa nga nekk Oustaz euh, Ousseynou kon bismillah tafadal jërëjëf Alaaji Daam euh, laaj nga question boo xam ni wala bëgg nga boog ñu waxtaane loo xam ni mhm. képp kenn ci ñun war na di ko laaj boppam mhm. ndax tarbiya xayra muwajjaha dafay am mhm. te yar wala boog nit ki ku ko bëgg a defar wax naa ko keroog ci rajo bi ci dunia maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla ma wax fa ma ne képp kenn ci ñun bu kenn jàpp ne rek alaaji daam mhm. yonent rek moo war a ñaan doom ju baax dëgg la wala ab sëriñ moo war a ñaan doom ju baax mhm. nekkate processus bi nekk ci yar doom mhm. ñaan yàlla doom ju baax da cee bokk dëgg la nekkate doom école mënu koo yar dama bëgg mu leer rek yéen ñi jàkkaaroo man doom école koo yar mënu koo yar li ci njëkk ci yar gi mooy ñaan yàlla doom ju baax ba pare motax amul ben yonentou bu ñaan ibnu ibnu moy fils fils dafa gàtt na xar day am dom muus am dom bo boo bëggee ak ñom ñaanal liñ wax zurriya moy descendance wallaay deug motax hunalika daa zakariya rabbahu khala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan dom ju bax lolu yontu yàlla zakariya lolu la waxon yàlla léegi nak tarbiya ayru muwajjaha moy li école bëgg dara bëgg ko dëgg la li école bëgg kër gi bëgg ko li kër gi bëgg mbedd bëgg ko li mbedd bëgg état bëgg ko kon nan ngay def ba yar sa njabot kon fofu la ñëw ci li nga ma laaj mhm. pour nit nag yar njabotam fa ko sento dang koy jox yarkat yarkat yarkat moy mooy kat, moy mhm. l'éducateur te buñu waxé waxee kat, sëriñ daara day dugg mhm. enseignant bi day dugg parce que ñoom dañ leen a jàngal yar. Mhm. nga war a jël nag sa njaboot ndax école ñett rek lay def ci nit. Mhm. alaaji daam. Mhm. daara. ak école. ñett rek la mën a def ci nit. moom mooy liñ tuddee jawaani bu tarbiya. mooy albina al ijtimaai. albina al al wala boog al i'daad al wazifi. bi njëkk mooy. école mo wara def ci xale bi xamal ko ne ko critère de sélection dans la société. ñaar rek la moy al ilm wal axlaaq. ak kay xam-xam. lañuy nawé nit ci société bi. ak jikko ju rafet. lolu mo andi blouse yi moy uniforme yi. deug la nekkati yow. dañ lay wan ah sa papa Richard la mhm. sa papa buur la mhm. sa papa si la sant wala mhm. Mbàkke ay dara kunta sa papa baadoola la baykat la loolu na yem ci buntu école bi dëgg la fii fi jël si moom mooy jikko ju rafet ak xam-xam loolu école moo ko war a def ci nit ki ci nit ki sëriñ daara moo ko war a def ci xale bi tey loolu lu bëri dafa ñàkk suñu école yi dëgg la benn photo nga deuxième bi mooy albina al axlaaqi école moo war a ay jikko defar jikko ci xale. xamal ko ne ko. ndax enseignant c'est un éducateur professionnel. ta sa papa ak sa yaay dañ la yar ni rek mais jàngaluñ len yar. dañ la yar spontanément mais jàngaluñ len yar. ta enseignant bi dañ ko jàngal. yar yar métier la. métier la. war xam. psychologie de l'enfant war ko xam. mu wara comprendre xale bi. su dé day sàcc. daf ko war xam. daf ko war constater ci xale bi. deug la su dé xale bi fenkat la. daf ko war constater ci xale bi. mu laaj a collaboration avec ses parents. Mhm. lijjanti lu tax xale bi def lii. loolu européens yi dañ koy def. Mhm. kon loolu c'est son rôle. Mhm. enseignant bi moo ko war a def. dëgg la. su paree nag. boo gisee soxna si lu tax mu woyoon enseignant yi loolu la. Mariama Ba. la pour wane ni ñoom armée lañ yor. su paree nag moo tax xaalima jaxate kala waxoon ne. xale danga koy defal jajali. mag nga defal ko li jaja. nee na jajali ñetti lettre la ja ja li mooy jàng jaamu yàlla liggéey mm-hmm. képp ku am sa njaboot mbokk yi defal ko jajali mooy jàng defal ko jaamu yàlla defal ko liggéey mu ne nag ku xasa mage kër taxaw na yaa jàngul ba mage léegi demal nga def liggéey def jaamu yàlla def jàng ndax kër taxaw na yaa war a gàddu kër kon loolu école daf ko war a def ci ci nit daf ko war a def ci xale bi Seyduna Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy le modèle suprême et universel mooy yonent bi mooy suñu tuteur mooy suñu référence moom moo wax nag lii nga wax muy xadis bii nga xam ni moom nga ma junj ne nañ ko ci wax saxeexul jaami moo ko génne ci xëtu 1603 Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al xayaa wal imaana qurrina jamian allahu akbar fa ida rufia ahaduhuma rufia al axar xadisun sarifu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kersa ak ngëm yàlla dañ leen a lëkkale ku dindi benn rek dindi nga ba ca des ñàkk nga ba ca des allahu akbar kersa ak ngëm yàlla dañ leen a lëkkale. mënuñoo bàyyante mënuñoo bàyyante. Mhm. kon képp ku dindi kersa xale. Mhm. moo tax lii ñu bëgg a dugal. Mhm. l'éducation sexuelle bi ñuy wax. dégg naa ci imam Pambay maa ngi koy nuyu. di ko ñaanal yàlla. nee na déviation sexuelle la. <laughs> nee na moom jàppewu ko l'éducation sexuelle mais daf ko jàppee déviation. déviation la ndax xale yi lañ bëgg a dévier. ndax xale boo dindee mbokk. dama ne xale soo dindee kersaam. ah ngëm yàllaam dem ah ngëm yàllaam day dem ni parce que waroo dindi loolu ci moom. dëgg la ko war a bàyyi ba âge bi mu ko war a xamee mu xam ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. te nii ko français bëgg a jàngale. islam am na ko. dëgg la kon nañ bàyyi bi fi nekkoon rek. waaw surtout. nañ bàyyi bi fi nekkoon su fekkee njub su fekkee njub moo tax njub moo fi nekk. nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi rek. te booy def SVT. ci quatrième dañ la jàngal. dëgg la. les caractères sexuels secondaires dañ lako jangal mm-hmm. mm-hmm. lolu kon kay te islam am na ko mm-hmm. ci lahdari dañ ko fa bayyi dañ ko fa bayyi bu yok buñu bu mais lii ñu bëgg jangalé xalé yi bëgg ci yok def ko par image yaq lu bari deug la te islam am islam jangalé na l'éducation sexuelle ci ma te te oustaz jangalé l'islam dafa and ak kersa dafa and ak kersa merci jangalé tubab bi dafa and ak ñak kersa kon ñoom ñaar. Ah. su fekkee ci jullit. ngay wuyoo amuñu cohérence. mënuñoo dem de mënuñu dem de mhm. dem. Mhm. te islam jàngale na l'éducation sexuelle. Mhm. boo demee ci suuratu nuur. ci verset bi yàlla di wax ci aaya. 57. 56 57 yàlla dafa wax foofu mu ne. ci suuratu nuur. moo tax dinaay wax ne. suratul nur ak suratul laxzaab dañ ko wara jangal jàngal yi ci kër yi pour ñu firil leen ko période bi ndax foofu moo jàngale l'éducation sexuelle ci mhm. l'islam hmm dañ leen ko war a jàngal mhm. yàlla dafa wax mu ne salaasu awraat ñetti waxtu yi bu ci sa njabo dugg ci sa néeg yow kilifa bu njëkk bi moy pour teunk rek moy jamono ba nga tëddee julligé dugg sa néeg sa dom bu mu duggat sa néeg lu dang ko wolu deug la allah akbar ñu ngi bañ ndax heure tëdd jot na mhm. islam kon mu ngi bañ mhm. sa doom dugg gis lu mu war a mhm. gis mën na ko def ay tasaawulaat yoo xam ni mënu ko répondre boppam jaaxal mën na ko bloqué sax ci njàngam ci intelligence am ndax dafa gis ci bàyyi lu mu war a gis wala ci nawet beneen bi mu ne heure boo leen di seest jamono bi ngeen tegee seeni yëre ci kaw mooy jamonoy seest heure boobu bu leen bu mu fa dugg خول القران خول الاسلام نيمو سيفيزي والله مو سيفيزي جانغال ليديكاسيون سيكسيال اها تي مانيير مودير بو خام دا فاي تولوك لا ماتوريتي سيكسيال دان لافا اها ناخ بي دا فارفيت اها مونيه ترويزيام بي موي جامونو بي نين دي واجال ورا جولي جي فجار جي ياو تا جوغوغولين تا دي واج سا دوم بوم لا بيت دوغ لول دا فاي ييغلو اها مونلا وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله سميع عليم والله سميع حكيم خلا يلا وخاتنا خلا نعرف نيو بقول نيو دانا لي آيب في سورة نور من أوقات نم صدام سو مزوري بول دوغت سنيك بول دوغت سنيكم لو دمكو يغلو يغلو لول ليديكاسيون سيكسيال الله أكبر islam amna ko. wallahi deug la wallahi deug kon li ñu bëgg def. deug deug bëgg dindi ker sa xale bi. mo leen ci djublu te bo démé ci téré buñ tuddé yasalunak fi din wal hayat ma joxaat la référence ci téere boobu. hawlu awratul mara. non la tudd. wallahi deug buntu boobu. mujallati bari na waye bo démé ci mujallatu khamis bi. juromelu xët bobu bo ca démé mo nga ca. dafa nettali mu ne sayyidatna Aïcha moo nettali mu ne anna asma bint abi bakr daxalat wa alayha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alayha siyaabu riqaax fa arada anha moom asma fa qaalat ya asma inna al mar'ata iza balaat mahida lam yuslih an yura illa fa asaara wajhi wa kafay nee na asma dafa dugg ci néeg bi fekk yonent bi mu ngi ca néeg ba fekk yére yim sol oyof asma doomu Aboubacar. doomu Aboubacar. mu ne ko yow asma. yëgoo ni jigéen su xasee majeur ba gis ngànt rek. ah jeex na nag. daganatul ci moom ñuy gis lu dul xar kanamam. wala loxo. loolu l'éducation sexuelle la. dëgg la. moo ngi koy jàngal ni ko jigéen kon yaramam warul feeñ. warul feeñ kon islam mu ngi jàngal l'éducation sexuelle. di wane ni ci suuratul ahzab. wa iza sa'altumuhunna mi fasaluhunna min a hijab yàlla kon mu ngi wone ni fii la góor ñi war a nekk mhm. fii la jigéen ñi war a nekk mhm. kon loolu l'éducation sexuelle kon yi ñu bëgg a def mhm. yaa xayti day bëgg a nekk déviation sexuelle mais du l'éducation sexuelle jërëjëf oustaz ci point yi nga xam ne indil nga ñu ko alhamdulilah te xajul sax ci benn émission bay xaj ci ñaar li tax mooy solo bi nga xamante ni si am na ko bu ñu demee bay dégg alquran day fekk ñu dunde jikko yi nga xam ne moom la yonent bi amoon yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum ko ahlikum naar boobu uh-huh. mooy tandiku leen seen ñooñ ak seen bopp wala loolu yàlla foofu yàlla moo ko wax <laughs> waaye dañu toll ci période boo xam ne lan lan moo war parent bi nga xamante ni si uh-huh. mi ngi jël doomam uh-huh. di ko yóbbu ci daara ji wala mu jël doomam di ko yóbbu ci école tubaab bi xam nga wax nga aaya boo xam ni ñu bëri nañ ci bàyyi xel nañ ci médité wu xalaat ci aaya bu garaaw nga wax ndax yàlla def ne yaa ayuha amanu loolu la déparé ne qu anfusakum wa ahlikum naaran bu koy firil nag gaa yi leen wax ne xool leen naaran daf ko def nakira def ci alif ak laam te lu yàlla te luñ deful alif ak laam bu dee ko tif ismu day nekk nakira nakiran lay nekk te ci tubaab ñu ko xamul mooy. dafa am defini ak indéfini. dafa am maarifa ak nakira. mooy yàlla def koon def ne fegalal sa bopp safara. ak sa njaboot. mais nag ñu bëri yaakaar ne safara sële la. muy lazza mhm. kutamma mhm. jahannama mhm. sha'ir yàlla ne déedéet képp ku jur sa njaboot te jàngaloo ko valeur yi naaran naaran képp ku jur sa njaboot te wonoo ko njub naaraan ku jur sa njaboot tegoo ko ci lislaam bi na coow jëm te yàlla naaraan kon gis nga yàlla def ko indéfini bañ koo def défini loolu nag aaya bu dafa nax ñu bëri moo tax nga gis ngénte yi li tax ñuy tëgg bu ñu xamoon aaya bi di nga dem wax ñu wàccee ay kaamil dëgg la ndax responsabilité bu rëy la dëgg la dinay gis Sénégal bu ñu falee nit nit ñi daw ca këram di ko tëggal ay tama di ko ndokkeel dañ la war defal ay kaamil xam yow responsabilité bu rëy la kon képp ku yàlla joxe doom jàppal ne responsabilité bu rëy la allahu akbar doom dama ne ku ko yàlla jox ku anfusakum wa ahlikum naara indéfini la mais du défini dëgg la yàlla ne billaahi képp ku ma jox njaboot jox la charge boo xam bala ngay jéggi siraat dinaa la laaj nan nga yore woon njaboot balaa nga yóbbu école wallaay dëgg la oustaz nga dégg kon doom dina xuloo woy juróom ñett ëllëg ko yan ak yàlla utaloo ma wajur wu baax fa nga déparé doom duñ ko yare ca école ba merci merci al umu madrasa doom jàngaluloo ma alquran ëllëg dina ko xuloog waajuram gañe tuddewuloo ma tur wu baax ah. dina ko xuloo ak waajuram gañe ko fii nu toll nag hmm. lii nga xam ne moom lañu bëgg a jël dugal ko ah. ci fi nga xam ne mooy école yi ci hmm. enseignement bi li ko indi ñun waxuñu ñu ko. waaye am na ñu xalaat pour war ci wax. lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee. Mhm. ñun war nañ ci mën a mucc ñun ak ñi nangu. li may fàttali daal mooy. Mhm. sama bàyyi moo ñu waxoon. Mhm. na ko yàlla dolli leer. amiin seen sëriñ moo lañ ko waxoon góor gi Malick. Guèye. mu ne ñii wax kenn dégluwu leen waaye ñii déglu ñoo waxul. déggal wax ji. ñii wax daf ne wax kenn dégluwu leen. waaye ñii déglu ñoo waxul. xam nga ñun ñooy wax. waaw mooy yow mi ak man ak ustaas yi nekk ci télé yi. Mhm. ñooy nekk ci conférence di mbel mbel di wax. Mhm. mais ñi ñu ci déglu ñu tuuti la. dëgg la ñi ñuy déglu nag ñoo waxul mooy kilifa yi. Mhm. ñi ñuy jox addiya yi. waaw neexul wax ci réew mi la. moo tax dinaay wax ne relation informelle bi am ci les chefs religieux ak état. dañ ko war a dagg. waaw bu ñu bëggee société bi. ah boo bëggee am autonomie pour wax kilifa gi dëgg. état boo ko bëggee wax dëgg. da ngay dagg relation informelle xam ne lan la defal sa kër maam tabax boobu mhm. da nga koo mérito da nga ko yoyoo c'est tes xam ne alal ji suñu alal la mhm. kon waroo koo gërëm bay saalit ba koy politique mhm. ndax yow sëriñ yaa boot koo xam ne opposition la bokk yaa boot koo xam ne ci état la bokk yaa boot koo xam ñëpp nga boot yaay sëriñ bu ne kon da war a boot koo ne la kon ñoom nañu génn wax bu ñu gisee benn affaire ci réew dañoo war a génn wax dëgg la xam ne responsabilité la ci ñoom bu ñu gisee ñu caricature yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. Mm-hmm. ñu jóg coow ko semaine toogaat mm-hmm. dégg fi affaire góor jigéen toog coow ko tuuti toogaat affaire l'éducation sexuelle ñu coow ko tuuti toogaat yooyu dëgg-dëgg euh, képp kenn ci ñun sa waajur nag bu la defaree moo tax li nga wax sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci xadis bu wér mu ne taqayyaru mawdi'a nutfikum fa inna al irqa dassas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na tànn leen fi ngeen di def seen mhm. deret seen leer mhm. ndax siddit day batu mhm. kon soxna si ngay wut da nga ko war a vérifier kan la dëgg la soxna si it war a wutal doomam baay bu baax wax naa keroog ci émission bi ci ma ne leen conférence tasfiya ñaari at ci ginnaaw ma wax fa benn wax mu xaw a reelu ma ne leen am na jamono yoo xam ne ci ginnaaw ñiy coow ay saak ndax góor gu yor ay saak. ma ne ku yabu yaral sa njaboot ndax tey jii képp kenn ci ñun ma wax la mboolem loo gis ci àdduna te muyul lu sikk. am na doomu ñoo xam ba pencu yàlla duñ ci bokk. ndax li seen way jur préparé ci ñoom. Mhm, mhm. dëgg la ma ne waykat bi sax moom forcé wu la. Mhm. daf laa wax na góore wax la ko ñaar. ba pare ne la bu la neexee. yow forcé la de. déedéet la de. yaay yaay tànn. yaay tànn de. <laughs> kon waxu la na góore uh-huh. ñaari yoon ba pare ne la far jigéenal ko uh-huh. def ne la na la neexee uh-huh. allahu akbar kon yaay seet ba xam sa baay yar na la yaay seet ba xam sa ndey yar na la ak ndax ñeme nga ko faa ndax ñeme ko faa def ci pénc mi bu la neexee wala woy wi foofu mu jàngale masala góor ñaar la ko wax jigéen mu wax ko benn na góore ñaar yoon la ko wax ndax miiras góor ñaar mu wax jigéen benn dëgg la foofu it jàngale fa lu garab kon kon dama ne képp kenn suñ sa waajur bu la yaree yaay seet rek ban kon nag woy jur war nga dollee vee ci sa njaboot ndax sama yaay yàlla na ko yàlla dolli wér daf ñu daan wax mu ne bu ñuy ko daan wax rek xam nga yëfi xale yaay nag da xaw a compliqué mu ne du complété du complété allahu akbar te lettre doom koy bind sànni ko billaahi bu màggee ko mer lu mu ca fekk kon nekke méchanceté la ñuy bañ ci way jur mhm. mais am nga droit compliqué mhm. ngir ngir mu complété ah mun motax tax bëgg nga sévère. Mm-hmm. mais bul def méchanceté baaxul. Mm-hmm. Mm-hmm. bëri na ñoo xam ne alaaj daam ñoo jàngal seen doom agression. ndax yow loo jot sànni sa doom. jot xeer sànni ko. jot bant sànni ko. tëkk ko ñetti fan. ñëw ci kër gi yaa ngi koy jàng fàq. yaa ngi def ci moom fàq yi fi bandi di yëgoo. dama ne encore une fois ma waxaat ko. woy jur yi nañu dollee vee ci i njaboot. école bii yii ma gis mënu laa yaral sa njaboot. non mënu ko mënu ko yi ma gis ni mhm. jawaani bu tarbiye ñett yépp école mhm. defo deug la kon na woy juri dolé veewaat ci sen njaboot mhm. xamné li tàqale digënté mala ak nit ki l'éducation moy yar ak xel te ñaar yo ñoy ànd motax Emmanuel Kant benn philosophe mag la daf ne l'éducation transforme l'animalité et humanité Allah akbar mu né li tàqale digënté malabi ak nit ki xel mais lepp looy def malaa nga koy def moo tax imaamu Jawzi Abul Qayyim al-Jawzi dafa wax wax ju am solo def ne lépp lu ñuy ragal ci nit mu ngi ci mala dëgg la lépp lu ñuy ragal ci mala mu ngi ci nit lan lañuy ragal ci ci gaynde sawlatul asad mooy fàdd mooy fàdd yàlla def na ko ci nit am na ñoo xam dañuy fàdde agressé la mhm. jël li nga yor bu yow sax nga dee di mhm. jëndiwuñ ko mhm. nga jékki-jékki fekk nit ci këram rey ko kon jikko ju ci gaynde yàlla ne def naa ko ci def na ko ci nit mais am na ñoo xam ne nag dañuy garder seen bos ndax valeur yi ñu amee nee na la daxal xay yi tooke bi ci jaan jaan lan lañu ragal ci moom alaaji daam mooy làmmiñam am na ñoo xam ni tooke bi ci jaan def nañ ko seen làmmiñ lépp lu ñu wax mu yàqu am ñoo xam ñooy wax ci diggante ñaari nit ba mu yàqu tooke bi ci jaan yàlla def na ko ci seen làmmiñ kon imaamu Jawzi Abul Qayyim al-Jawzi nee na mboolem lu ñuy ragal rek ci mala yàlla def na ko ci nit nit nag mooy garder ay valeur am dëgg la dëgg su ko defee nag lii nañ ci dolli yaraat njaboot gi lii ma gis daal dëgg-dëgg ku yabu def ci taxawaay balaa nga yóbbu ci école jërëjëf Alxaaji Ousseynou mu mel ne xam naa ne li ñu amoon ci minute parce que mooy waaj a jeex waaye émission bi incha allah suite bi incha allah dinañu ko indi dinañ ko indi kon alhamdulilah ndax dafa mel ne dañu départ rek taxaw te liñ ci war a waxtaane bëri na bëri na parce que nag euh, euh, euh, doomi yàlla bind ko sànni ko way jur daf ko bind jox ko way jur dama la ko sàmmloo kulukum raa in wa kulukum masul an raiyatihi mm-hmm, mm-hmm. su ëllëgee dinaa la laaj yow alaaji Ousseynou li ma la dénkoon noo ko toppatoo yemul ci doom ak way jur kese nag ku kuñ ci dénk luñ la dénk lu nekk rek yàlla dina la ko laaj kon war nañu veye ci njaboot gi ngir bu nu bañee ëllëg société bi dootuñu am ay référence mhm. dañu leen di yar kon mu mel ne émission bi xam naa ne waxtu wi mooy waaj a xoncu ndax loo xam ne buñ ko doon waxtaane at du jeex boo ko bëggee waxtaane ci ay minutes waaye nag lu dul jeex incha allah ci am doy kon ñu jox la nga tàggoo ci kàttanu yàlla suite bi dinañ ko joxe incha allah xanaa dolli rek santaat gërëmaat euh, ñëwoon naa fi mhm. ñëwaat naa fi mhm. lépp rek ci sa yaatal la. Mhm. nga waxaat ma ne nañ ñëwaat ñu jàngataat lii nu ko lislaam gisee. incha allah ñu ngi lay ñaanal suñu borom bi wax naa ko fii ci plateau bi ñu mujj Euh, ne yow jëmm ju baax mhm. waxuñu nag pour di la zete fa pour nga ñuy éviter mhm. pour loolu mhm. li ñu lay wax dañ la koy ci tànt yi wax nañ la ko fu ne jëmm ju baax te xam nga li nga doon fonk nga sa bopp respecté nga nit ñi tabaarakallah li ñuy wax al i'tiraf mooy reconnaissance yàlla def na ko ci yow te ci fu baax nga bokk ñu ngi lay ñaanal suñu borom bi fii boo fi ñëwee ci rajo bi da fi yokk si mooy da ñëw yokk fi lu bëri ndax alaaji daam ñaanal personnel bi fiy liggéey yëpp asatis yi fi nekk yëpp yal na yàlla taxawu leen defal leen sutura bu defee lii rek lañ bëggoon a wax ñaan boroom xam-xam yi yal na yàlla may leen ñuy wëralante bañ jëwerante su mujj wax ci àdduna yal na doon baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Oustaz Ousseynou Diop yor daara fii ci Thialy nekk boroom xam-xam di doomu sunu bàyyi Omar Diop tey moom lañ àndaloon ci waxtaan wi ngir invité ko ci gis-gisam te it boo déggee li mu wax nga xamne su ko temps bi maye woon dana andi lu bari waye nak inshallah benen yon mi ngi fi te ci kàttanu sunu borom dinañu ko ànd ak yéen di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nag ñi ngi seetaan émission bi di gàddaayu nabi nga xamante ne si moom ci yonent bi rek te liñ fi doon wax boobu ba léegi génnul ci yonent bi ndax yonent bi moo ko jàngale nuyu bàjjen Yacine Sakho ak waa këram yépp euh, di nuyu bu baax sunu bàjjen Kiné Sakho ak waa këram soxna Ndey Penn Njegen di sëtu maam Alaaji Ahmad Baro Njegen moom it ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko sunu borom dolli ko wér sunu waa kër ca parcelle nuyu maire Fatou Gueye ak waa këram Pa Ada Sarr ay famem yépp ñu nuyu leen ziar leen xam ne daal yaa ngi seetaan émission bi alaaji Kader Bass waaye ñaanalaat DG alaaji Pape Doumbouya yàlla gën ko yëkkati waaye ñi woon ci régie bi muy madame Ndiaye ak soxna Kia moom ak ki nga xam ne mooy alaaji ak sunu jigéen bu baax bi nga xam ne moom itam ma nga fële ca régie ba wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ndokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di nuyu kilifa yi ci télé beeg yépp rek di ziar ñoom xaj daaw daak ñoom sëñ Modou képp ku nekk ci télé bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu